toogal ko fii ànd ak mobiliser jigéen ñi muy ci yeneen penc yëpp ci waa euh, Baye Fall ndax taxawal ko fi bu ko defee ñu ànd liggéey ndax politique bi nag moom du dara politique lenn la rek du ay ñëw woote tàccu dem ak yooyu noonu politique bi ñuy woote mooy dëgg moo wóor rassemblement pour la vérité dëgg moo wóor kaay leen ngeen njëkk ñu ànd booloo doon benn ànd ci dëgg liggéey soppali gox bi ñu nekk soppali suñu condition de vie loolu moom moo ci am solo waaw loolu la ñuy politique mu nekk ci social nekk ci économie lii économie la lii amul lu mu mënta jóg lii mënoon ngeen dem ba di ko yóbbu ci épicerie yi di ko placé ak ci boutique yi ak yooyu nit ñi dañ koy jënd penc bi nañ fee yàgg waaye lépp lu lu baax loolu woo ko ci penc bi sa baay bi te ñu amuñu lu sa baay moom rek lañ yaakaar waaye gis nañu yow soxna Soda ni ñu yàggee ci penc mi nekk ci penc mi mbootaay bu ñu yëkkati loo yëkkati nga dem waa mbootaay ga ñëw leen yaakaaroon na ñun ku sa baay yow it nga nekk fii nag dara ñor la it sa taalibe baay la ñor leneen ñor la sa taalibe baay rek la ñor ci ngay xëy ci ngay gont soxna Soda lépp loo xam ne luy maye maanaam loo xam ne luy suqalim réew la indi nga ko Ndar Fall soxna Soda ñun amuñu luñ la fayee suñu mbootaay gii soxna Soda di jëm nañoo ñoom di ba tàyyi pour wut luñu luñu jëmale kanam rek nag waaye mosu wóor ñu jëmale ginnaaw soxna Sooda yow doo ko yow yow yow ñun dan laa wóolu doy loola soxna Sooda loo ñu dugal loo te xam nañu doo ko yow yow doo ko ñuy nax yow doo doo ko ku ñuy nax sax su yaay ñu ko tàmbalee ñi nga xam ne dañoo def déplacement déplacement liggéey ba ñu njaareem si ndigalu Pape Modou Fall di nuyu suñu mbokk taalibe yi nga xam ne am ñu lu moom di nuyu soon Xadi sama rak ñu nuyuwaale njabootu sëñ Mablaay gi nga xamante ne am nañ yéene teew fi dafa fekk rek ñu ne si programme poroxaan bi di nuyu Ibrahima Fall mi nga xam ne sama xel dafa dal ndax moom mën naa ne sëñ Mablaay la yàggal ba sëñ Mablaay sañ cee Mariyaani gi ba tey moom moom daay di maam Seynabou Ndiaye mu formé ko sëñ Mablaay mën naa ne sant sama Seynabou Ndiaye gi lépp si loxoom lay la jaare kon su ci amee yëg-yëgu ñëw rek la ma sama baay waxoon rek lépp looy def sama ñaan a ngi si moo tax bi ma ko gisee démb ba tey mu topp bi sama xel dafa daal yow nag soxna Khady Fall day sotti Baye Cheikh Ndaw Baye seex Ndaw moom ku ko xamul tamit dégg nga ko waaw ñaa euh, mi mu duggee li soxna daba seere si waajuram ak soxna Rokhaya Fall rek dafa doy lépp nga yar ñu ci doomi taalibe man nag li ma waxoon Khady Fall ndax lii ba ma ko damaane yàgg na ma na ko man de amul lu sama péncum baay mi ak jànnatul sama baay nag ñetti pénc la am te ku ci ay nit a nga fa toog xam nga li ngeen def nii iseen leen ko ñeneen soxla nañ ko muy ñetti picc yooyu léegi xëy na bu ñu ko woote woon demee nee waaye day tàmbali Khady Fall bu ma ko ne bu soobee yàlla dinaa leen dugal ci programme bi ma gis Pape Moudou muy def jaaree di ko defal njaboot sañu laay bu góor gi ma xam ko lu bari du ma ko wax fii ma xam si lu bari ma gis ay jigéen ñu amul liggéey mu jàppale leen dama daan wax naa man di su ma ko mënoon a am jannatu ñu defal ko soxna yi dina ma neex lool dama gis ñoom seenu jàmbaar si marché bi nangoo sonn lool gis si ñoo xamante ne ay jigéen la waaye daanaka ñoo yor seen kër di daw di wuti di am di indi di def ay kees te amul kenn ku yëkkati fii dara nga yëkkati ko jox leen ko te te jamono léegi nit ñi boo leen di woo da nga leen woo ci dara woo leen si loo xamante ne ful la te Babou Modou Fall man Diourbel laa dëkk falaa juddoo falaa yow ma gis la muy def Diourbel gis ñu mu wutal salaire ah mu baree bari xamuñu ko lii nag damaa bëgg ñu yem seen moom man bu ma sañoon fii jigéen ñi fi jàllatul ma waaye gën aw ma lu sama baay aw ma lu Cheikh Modou Ablaye xamul ka mu amut ëllëg yomal xayaam ma ma bëgg nag ñi nga xamante ne sëñ bi dafa dëkkoo ak ñoom fonkoon leen ma bëgg ku leen jàppale sama baay danaan def nit sax bu fa mu dox ak tànkam dem seeti la saafantee jaw yëg-yëg boobu nag man dama koo am si nit ndax maa ngi ñoo ma dëkk ñoo bokk marché yi ñoo bokk lépp ñun xamante ne. soxna Sada sunu sëriñ ku ko yaakaar mu jàllala. mu jàllala soxna Sada sunu sëriñ. day faal nañ jàppuloo wa ci digal. ma Soda Faal yaa baax la yaakaar nga jàll ko. la ci wusu Seex Ibra la mu dem ba déllu yi ca déllu ñu bay fa ali yàlla lan sunu yori boo wa ca dagar ba balay jëla di añee ne ko reere dem màggali ñu ko da sunu bu sëriñ bu ko yaakaar mu jàll la jël mu jàll la sono sono fa la fa ko yaakaar mu jàll la